rafetlu ko ne ginnaaw tukki nemmeeku boo xam ne rek doon na ko amalee foofee ca yi moom Ousmane Sonko jamono ji dem na foofee ca Mali nag ngir gën a rattaxal diggante ko ak Mali boobee yëglekaay ci la ñuy des ba tey muy le soleil nag dellu siwaat na ci yokkute bi ñu nemmeeku ci taxi yi nga xam ne rek dañu koy amal jëmale ko ci woto yi nga xam ne rek ñooy daw diggante frontière bu Gambie ak bu Sénégal yéenekaay bi ne fi mu toll nii ñoom camionneur sénégalais nag ci yaakaar gu tas la ñu nekk ak ci guddi gu bët setagul ndax fi mu toll nii dañoo jaaxle benn ci responsable yi nga xam jamono ji nag nee ñu daal pour nga traverser kilomètres ci territoire bu Gambie faaw rek nga fay soixante-seize yëglekaay réew mi quotidien moom itam àddu jëmale ci lu soxal màggal Touba atum kilifa yi ña ngay xamle ci biir yëglekaay bi jafe-jafe yi nga xam ne rek moom moo leen di gën a sonal foofee ca Touba ci jamonoy màggal gi bokk na ci wàllu ndox ak assainissement àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram réew mi sport ma ngay xam ne ni nag Monaco ak Barça Lamine Camara